أبيت عن المولى تعالى الذي رفع واني ومن

0,5 litres 0,25 litres Tchakri n'a 650 grammes pou 500 grammes pou 300 grammes so 1 kg, 500 grammes ak 5 kg Tchakri ak 20 kg pour seni xew Fo dem fekk ko supermarché yi ci boutique yi bouteille vide yi tamit am commandant ko manam bouteille yi deful dara te numéro yi 76 623 09 49 le 76 623 09 43 le 77 837 54 54 ou le 76 623 09 48 jamba sant yàlla yow gën naa la gisee ça fait un moment waaw waaw waaw xanaa depuis qu'on se voit plus <laughs> mariage ba la ñu gëj a oui sinon yaa ngi jàmm baax a ça ça alhamdulilah te dama jékki rek ma euh, parce que lu ma la ci téléphone bi yaakaar waxtaan naa ci ak yow mm-hmm. am lu ma la ci téléphone bi yaakaar waxtaan naa ci ak yow loolu nak bo gisee nangu ma ci wona yaatal ci biir téléphone bi moy mbiru jambour la euh, serigne bilim xam nga ko bu baax wa moy Mara bi ñewoon ci mariage bi te doon leeral suma digënté ak nara xam na ko waaw. mom dal mo jek jek rek melni lu taggu ak xelam. Hmm. bo waxe guuy ga mu wax ga ko xelam spécial day dox si mbedd yi sax di jabatu wala genre te ci biir waxam jabatoom daf may jaaxal parce que day mel ni luy cax. ay hmm. sot lay indi genre. léegi nag man bi ma toogee xalaat ma yaakaar ni lii kat lu ñu ko def la man def def laa ko teg euh, moo tax daal su ma xel dem ci yow ma ne xaaral ma ñëw waxtaan ak yow ba xam naka lañ koy mën a ba loolu ko daal deñ ndax kat soxla na ndimbal bu baax a baax. d' accord dégg naa li nga wax lu baax bu baax baax a baax ah suñu Sañafoor gii de wax dëgg yàlla am na ay sëriñ yu mag a mag waaye nag su dee ci wàllum def-def la moom sëriñ bu naan boo feen moom amu ci dend ci tund wi ñu nekk. boo la tudd waaw benn sëriñ la bu mag. waaw moom fii nag sëriñ yi fi nekk bëri na mais ku ne ak la nga gën a aaye mais su dee ci wàllum def-def la moom boo fen moom gëm naa ne suñu ko fa yóbbee incha allah dana saafaraw. yarwaay Couture sama ñaw bi jox ma ko boog ba nga ma dalee wax sama ñaw bi ba léegi. Eh, xaw la moom fii ah. amu ma temps bu may perte amul loo xam ne dama koy wax di ko waxaat. que ça soit la première et la dernière fois yow ak sa bon bobo sa rakk bu réew boobu bu xamadi bobu nonu bii la xawma bibo bii boobu sama pas bu may xam yow no tudd ak mom nan la tudd gis nga moom len gissete gisatee sama mbeddu kër ni wax ak Kiné dama len ni cul est-ce que dégg nga baax li ma wax mais nga ay dëmm ngeen yeen ah, yow ku rew nga. yow ya ma gën a réew téeméeri junni ben, xam nga xam nga indi xam nga la moo tax ma indi la wax su ma fekkoon dama kay ñuus te xam naa yow sa paxi bakkan yi mën noy d'accord si comprendre nga baax lu ma wax su ma ñëwoon fii yow it nga am loo ci inspiré ma lay noqaale. Ah, déglul ma ma temps ku réew nga réew mënta paase nga dugg kër jàmboo xaab xaabeeg say xat yi nii di jaay réewande ñun ñoo la gën a réew foofu. yaa ngi dégg baax li ma la ki ne mu ndaw dugg sa biir kër doxaan ki ne mu ndaw daa dajee ki ne mu ndaw ci mbedd bi am droit doxaan ko yaa ngi dégg. sa réewande gi ngay jaay nag seen gàlle nga koy jaay mais soo génnee ci mbedd bi jaay Ah, c'est bon. yaa ngi may dégg ba. d'accord kon wàccee nga sa tomb. pare nga d'accord pare nga ah. waaw ah, euh, hmm. loolu koy jàpp naa ne amul lu ñuy xaar. wala lu ñuy yàggal. Hmm. loolu koy moom bu jaree sax sëriñ bi lim ñëw. Hmm. danañ ko def wala bu jëree sax maa yow ñu ànd fa ma wax ma wax ko lii ma la wax. waaw ah, d'accord léegi. Eh, bala ñu faa ànd. da bàyyi ma dem fa ba pare. waxtaan ak moom wax ko lii nga ma wax ndaxte kat moom ay jotam bariwul te li muy xat dafa bari léegi su ma ko waxee ba pare moom incha allah ni dina jox rendez-vous buñ ñu joxee rendez-vous nga nga xam si bés boobu boo dikkee doo doo xaar doo def dara mu wax ñu yan yan yan heure lay gën a xaw a féex su ko defee nga déplacé sëriñ bi mu ñëw nga xam si bu ñëwee du def dara day ñëw rek dugg mu defal ko li mu koy def incha allah. baax na gannaaw noonu nga ko gisee euh, amul solo léegi yow loo mën a dimbale rek ba waxtaan ak moom bu ko defee tey euh, mu xool ko dina ma dimbale trop ndax kat sëñ bi jamono ji moom laaj na ab dimbali laaj na ab taxawu te am naa ci yaakaar ci yow bu baax a baax a baax a baax hmm. incha allah. yàlla bu yaakaar tas. ana màgget moom. màgget a fi. Ah, waaw mi ngi si jàmm. waaw mi ngi si jàmm baax. te moom xam naa dama leen yendu rek ba ker gi. sedd waaw ah yow ko wax dëgg yàlla nag dañ fee gëj yendu. <laughs> ah waaw mais. maanaam ça fait longtemps ngi nii. waaw waaw waaw on sait bi la ñu ko gisante. waaw waaw waaw yàgg na waaw ma ci loolu rek. waaw waaw bu neexee yàlla. Ah. léegi yow bàyyi bu bu kër gi di naa fa dem wala wala su ma fu mën a dem tey. waaw bu subaa jàmm ma xëy fa dem fa. man moom xaman xamante ne bu baax ak man ak moom. bu ñu yeggee moom dinaa ko gis gis bu neex bu neexee. waaw waaw waaw loolu loolu lañ ci xam la moo tax ma xam ne yéen réew leen xam naa ne am ngeen fit dugg sama biir gaale xam nga ni su ma lay bu fekkoon ne mu ngi dugg sama biir gaale fekk ma fa ay néew ngeen di gënaale bu ngeen gisee ma ñëw fii xam naa ne am ngeen fit lu dugg sama biir gaale xaar ma pare

daa bëgg nga taalal ba caaxaan mais dimbale ma rek ngir yàlla xoolal dimbale ma rek dimbale ma la ko ñaan nga defal ma fii numéro bii baax moom woo ma bëgg wax ma wax ko dimbale xam laa bëgg nga teew bii baa teew ma boole leen def leen booy sinon yow ko si moom ma la numéro bii baa comprendre xam nga lan laa bëgg ah. nga tàllal ba caaxaan jaay c'est bon xam nga jéeg ji ak jànq ji man la yàlla bind pour man ak ñoom loolu yow la laa yem nag du ma ci wax loolu yàlla mais ki ne ma ndaw bu génnee ci mbedd bi ñu doxaan ko ngay def ak sa taat rëy bi mel ne jongoma nii kooku réew nga man naru ma ci woon a dugg sax waaye yow yaay tax ma dugg ci te danaa jàppale sax bii tata namm naa la de. loo nekk yaa ngi ci jàmm waaw ah, kontaan naa moom. waaw waaw loolu de tax sax la gën a kontaan moo tax sax ma ñëw fi tey jii. Mm-hmm. seet si woon la. di la remercier ci sa taxawaay. ci sañ mm-hmm. mbilim ndax sañ mbilim suñu sañ mbilim na dëgg ñun ñoo waroon a taxaw taxawaay boobu. ndax képp koo xam ne yaa ngi ci jafe-jafe. Mm-hmm. taxawu na la nam la war a taxawoo. ndax man maa ngi doon ju lëj ju lëj joo xam ne. <laughs> du jóg ci lii lum doon. te saa yu ñëwee rek mu taxawu kon su amee gàllankoor nga jógee fee ci dëkk ba ñëw yor ko ba yàlla suñu borom delloo ko ci jàmm mm-hmm. di amul duñ def lu du sant la ak di la ñaanal oh. te xam ne nit bokk naa nit te taxul mu taxawu ko waaw dëgg la yàlla sëñ bi rek laa fi am de su ma ko taxawu kan lay taxaw dëgg la koo xam ne tout le temps su ma jaaxlee rek moom rek laay gis féete na ma ndey féete ma baay féete ma fépp uh-huh. kon c'est normal tamit ma ñëw féete ko fépp tamit. te xam ne moom rek laa am. dëgg la dëgg la te su ma ko defarul lii rek. Mm-hmm. boobaa man duma ko. dëgg la ndax taxaw yàgg na maa taxaw fépp. dëgg la sëñ bi moom yàllaa ko bindee baax. Mm. ci dimbali jaam ñi. la lépp. kon moom saa yu tolluy diggante rek. Mm-hmm. yàlla suñu borom la ko boole lu ko dim lu ko dimbali. kenn ku ne sa xol moom la la yàlla di fay xolam la ko yàlla fay moo tax mu indi la fi. nga mm-hmm. taxawu ko taxawaay ba ca war. ñu di la ñaanal yow tamit. yàlla la yàlla yàggal. yàlla fay la lépp luñ ci sonn. moom it yàlla suñu borom bi may ko wér. dara bañati koo dal. ndax moom mooy suñu lépp. Ah, waaw waaw. mooy suñu lépp waaw waaw. kaay naaj bi tàng na de. ak yow ndax nga naaj bi defal ñu ba laaj naaj naka mu. ça yaa ngi jàmm. waaw maa ngi la gis ngay dox di mel ni luy jabatoo gi genre euh, te aussi yow dama la xàmmee sa kanam bu baax a baax a baax. amul un jour yow ma dajeeg yow euh, ca guy ga. waaw. yow la. man la waaw. waaw ma kay. danaka man mom yalla nak daf ma defal lo xamni ne su ma gisee nit ben yon rek dama koy xamé mais nakum ça va. ya ngi jam ma ci jam mo baax naka village. ngay fa ngi ci jam bu euh dafa melni jamono bobu bima lay gis ak jamono bii bokkuñu de lan mo ci problème lan la ak yow lan ngay def fi wala fi nga dëkk soxna fi hmm? euh, lan ngay def fi maa nekk si ay jafe-jafe rek nekk ci ay tolof tolof yu xat rek jafe-jafe àdduna jafe-jafe hmm. fan yi damay dund lu métti sëñ bi te mënoo ko wax kenn ah bon maa joteeg sama waajur après mu génnee ma fi mu aw ma fu ma nekk loolu de doon a waar lii nag maa la ko indiloon. aywa ah tata da nga ma jox lu amul solo. ah kontaan naa yow toro wax dëgg yàlla sa taxawaay dafa rafet lool. merci wax dëgg yàlla te taxawaay bi moom ñun ñii waroon nañu. Mhm. ndax féete nañu fu nekk. dëgg nit nga nag la féetee fu nekk su tool la diggante da ko war a féete. Mhm. su fekkee ne taxa boobu amuloo ko boo gisee ko la ko fa féeteel doo man lu sant ko ak ñaanal ko. Ah, moom laa am su ma deful nii rek boobaa mooy loolu tab. waaw bi moom yàgg na maa féete fépp. ah yéen yéen a baax rek da depuis loolu waa koñ bi ñëpp ñu ngi fiy ñëw di indi añ ak reer yëpp te bu la neexoon bañ leen see fekk mais maa ngi gis lépp tamit kontaan naa si trop lii may wane ne baax dongu moo am solo ndax bu sëñ bi nekkoon def loo xam ne jaaduwut boobaa doole leen ko sax yëg dëgg la de te nit moom booy booy bëgg da ngay bëgg ki la bëgg et puis tamit boo yëg da ngay yëg ki la yëg loolu rek moo ëpp solo ba tax na kontaan naa bu baax a baax tey li nga def nii dafa rëy si man mais yàlla bëri na sutura te yàlla na yàlla fay sa tànk yi nga fi ñëwee amin amin yàlla baax na yàlla la yàlla fay sa coono bi ñu ah, ci sonn amin te yàlla gën koo wéral lool moom laa fi waaw ah, dañoo féete fu nekk nag fii moom koñ bi moom lépp lu ñu def ci moom rek mhm. moo leen ko lebal ji leen ko te xam ni nit ki moom ah, doom aadama boo lebal mhm. lebal ko rafet rek saa yoo lebal dina la ko fay ñoo ngi sant bu baax te di ko ñaanal amuñu fayam moom lu ñu baax rek moom moo ñu raw ah, moo ñu moo ñu ko ji kontaan na bari na amul solo amul solo amul solo maa ngi dem waaw doo maa ngi dem dama xaar sa mel ni lu sedd baax na baax na maa ngi dem incha allah dinaa fi ñëwaat sax nag metti nag trop nag quoi te rawatina sax jigéen am na nu muy demee rek mën na sànku jigéen kenn waru ko génne ak lu situation yi métti métti jigéen waruñu ko génne parce que am na mille sens pour bon tey bu la neexoon mën nga luye ab néeg wala nga wut sa wala ngay taxawaalu genre lu ne mën na la ci fekk donc man nañ la violer extra extra quoi donc mais nag na sa xel dal man fii mooy suma kër dama génnoon taxaw nii di jël air far yàlla nga agsi euh, an say bagage mooy bagage maa ngi ko dénkaane sama benn xarit bu góor foofu laa ko dénkaane d'accord mais xam nga ko waaw d'accord léegi xoolal nan dugg ci biir nga dallu euh, naan ndox après sama soxna mi ngi fi ma présenté la ko ngeen gën a xamante. waaw du indi du ma la indil problème sëñ bi. garaawul bàyyi mën naa xool feneen. non non non non sama soxna garaawul nit ku baax la te nit ku yaatu la te am na compréhension ci lépp quoi parce que moom lu mel ni arrivé woon na ko kon te jàpp naa ni boo nekkee ci situation yi moom xelam day dem te ba mu ca nekkee jàpp naa ni waru cee joué quoi man ak moom dong ñoo fi nekk d'accord voilà nan dem ñëw. importante para, para a minha vida, para mim, se rek man ay ni suñu bëggante dañuy demante ak dikkante te seetlu naa depuis ñu commencé bëggante ba léegi saa yu ma xëyee sama xol day gën a jaayu jëm si yow en tout cas loolu moo nekk ci man li yëg yëg boobu moo nekk ci

soxla na bu baax ku ko jàppale après nag ni waxtaanee ak man xamal ma ni ma dafa am ak waajuram bu góor problème léegi nag loolu nag marqué na ma parce que man bu ma gisee ku nekk ci ay jafe-jafe sama xel du dal damay am ñeewante ak yërmande gu mag ci yow donc dal na ma man ak yow moo tax ma ma bëgg nag. indi euh, ko fii nga jàppale ko ba mu génn ci ay jafe-jafe yi mu nekk yàlla fay la fay ma nee naa ko nag am naa fi soxna soxna si nan nga tudd man Eva laa tudd ah? Eva Eva kii suma jabar la Naara la tudd Naara Naara Eva la tudd أنا بعمل مسابقة أنا مين مين بعمل سيامري أنا معاه دبي لو دي قدام waaw dëgg la mais xam nga nit ki soo ko bëggee lu nekk ci moom nekk ci yow hmm. dama bëggoon rek kamu yani xoolal bi nga xam ne fay sa bopp ndànk da nga la dafa baax ba de mais man moom je ne suis pas allé moom bu dee ci côté boobu na nga dalal sa xel bu baax ma ngi fi te tamit li ma xam bu may àndal ni boo ko bëggee pire et dur. mooy yoon sax en tout cas ci dara la am yéene takk nga sama soxna. xam naa pas su ma ko gisee limay may wax ak moom waaw may ma dinañ ma accepté proposition boobu. xam naa dama leen soxla si loolu la ñuy xaar. Hmm. Ah, yow pare la boo lay tey sax xam naa dama dafay pare ci yaa ko wax de. cay ah, di ko financé hmm. loolu dina bu ba lank. <laughs> sa xel fi doon ma ngi lu neex. passé tout la nuit avec moi. dama ne xale bu ne yow. Mhm. jël guddi entier passé ko ak man. Mhm. ma indil rek dama koy téye fii sa kër la dalal ak jàmm. merci beaucoup soxna si kontaan naa trop. Ah, euh, franchement franchement ni ma leen gisee ngeen commencé nii euh, sama xol sedd na aussi sama xel dal na waaw en tout cas maa ngi koy ma maa ngi lay ñaan nga nga tette ko nga jàppale ko euh, yow donc Nara après duyul ko ndox mu sangu ba set nelaw après ñu xool fan la sa bagage yi nekk nga jëli ko nekk fi entendant ñun dong fi nekk dañu wéet d' accord ah léegi na leen bàyyi ngeen waxtaan en tant que affaire jigéen xam nga yow xoolal Eva na t'inquiète pas duggal ci détails yi ruubeel xam nga waaw yaa bëgg gën a xam quoi def ko comme sa kër voilà jeex na yow doy nga ma ci quoi yaay première dame toi aussi ah ok ba mu dugg ci biir waaw nekk ci connexion bi bàyyi leen ngeen waxtaan ruubee Eva merci beaucoup. Euh, def ko comme sa kër tu m'entends d'accord kan yow noo def dugg fii ak fan gisee Mara ay naari naari am nga fitte naka def laa Nara Nara yaa ma Naara ñaata yoon laa la Naari woo nga ma ñetti yoon lan la.